nee na nuyoo bi nag mi ngi ciy jiital Cheikh Mouhamadul Mountakha ak mboolem rakkam yépp ak mbokkam yépp ne wax ji day du gudd nañu ko daan tënke rek lañ koy tënke ne sëñ Abdul Karim mbokkum sëriñ Touba la mu ko jege lool waaye nag moom Cheikh Abdul Karim bi mu ñëwee ci ku baax ki ku baax ki da xamal ne ko ku baax ki da koo xamal ne ko lifi fi nekk li nekk ko ak mbokk doon maye. bu ko ak mbokk doon la ci kenn du ci ëppale. waaye day jaay. waaye nag day jaay. sëriñ Abdou Karim jaay ak mbokkam. sëriñ Abdou Karim jaay ak mbokkam. jënde ko ak taalibe. jënde ak taalibe. liggéeyal sëriñ Touba. liggéeyal sëriñ Touba. bam ne ko wàññil ëpp na. ba Sëriñ Tuubaa ne ko Abdou wàññil ëpp na. wax na ko ba tey. wax na ko ko ba tey. ah wàcce na ko ba tey yéen nanguwut a wàcc. moom Sëriñ Tuubaa it wàccee na Cheikh Abdoul Karim waaye liggéey bu Sëriñ Abdoul Karim tàmmoon tax miinul wàcc tax wàccutoon. benn bis. benn bis nag. sëriñ bi woo ko mu ñëw. sëriñ bi woo ko ba mu ñëw. ma ne ko xanaa xamoo ne yàlla santatuma liggéey loola. mu ne ko Abdoul Karim wàccee naa la wàcceeti la tey jii nag dama lay xamal ne yàlla santatuma ma liggéey loola. am ngëm mu ne ko déedéet mu ne ko am nga mbaar sëñ Abdou Karim euh, sëñ Tuubaa ne ko ndax am nga néeg mu ne ko déedéet mu ne ko ndax am nga mbaar mu ne ko waaw mu ne ko demal nga jaaxaan ca mbaar ma sëñ Tuubaa ne ko Abdou doxal nga jaaxaan ca mbaar ma sëñ Abdou Karim jaaxaan ba mu yàgg ne sëñ Abdou Karim jaaxaan ca mbaar ma ba mu yàgg sëñ Tuubaa woolu ko sëriñ Tuubaa woolu ko ne ko santal yàlla ne sëñ Abdou Karim santal yàlla mu sant ba muy ñetti yoon sëñ Abdou Karim sant yàlla ba muy ñetti yoon mu ne ko yàlla nga xam ne sëñ Tuubaa wax Seex Abdul Karim ne ko Abdou yàlla daf laa boole ci ñi nga xam ne. seen jëf dara neenu ca. seen jëf dara neenu ca. a ah, yim ko waxal bari na lool. yim ko waxal nag moom ku tedd gi yim wax ci Seex Abdul Karim bari na lool. sëñ Touba nag bari na ñu mbooleel mbooloo. sëñ Touba nag bari na ñoo xam ne boole na leen ak mbooloo. waaye ñi mu tudde seex bariwul. waaye nag ñi mu tudde seex ñooñu day bari wuñu. waaye sëñ Abdou Karim ca la ko boole. waaye nag Cheikh Abdoul Karim moom ca la ko sëriñ Touba boole. koy seexal. ba mu koy seexal. mbooloo la woo. nee mbooloo la woo. def ci ma Massamba ak Cheikh Modou Moustapha seede. mbooloo moomee ma Massamba ak Cheikh du Moustapha moom Serigne Touba la Serigne bi woo def leen seede ca loola. ne mbooloo mi li muy bari bari Abdou laa ci soxla. daal ne mbooloo mi day li ñu fiy bari bari bari bari Abdou Karim rek laa fi soxla. ñu woo ko muy jégat. di jégat baag si. nu woo Cheikh Abdou Karim ne ko ku baax ki nee na nga jege si muy jégat baag si. mu ne nikki ci ñaari loxo yi Serigne Touba téye ci ñaari loxo yi si Abdou Karim Touré ne ko mën na maa boole penku ak sowwu daal di ko ne Abdou xam nga ne man na maa boole penku ak sowwu teg ko ci sa loxo bi teg ko ci sa loxo bii yaatal la ci ba mel na yaa ko moom yaatal la ci ba mel na yow rek yaa ko moom waaye la ma la fàggul ëpp loolu waaye nag la ma la fàggul moo ëpp loolu ñoo ñuy waxi seex ñoo ñii ñuy wax ay seex ci laa la boole ci laa la boole ah daal na ko jógal dem daal di ko ne jógal dem sëñ Abdou Karim dem ba yàgg mu ayu ko waat ko mu ñëw ne sëñ Abdou Karim jug di dem ba mu yàgg ku baax ayu waat ko sëñ Abdou Karim bañee ko del si waat ci sëñ Touba mbaa xam nga ne lu ma wax mën naa ko ne sëñ Touba ne sëñ Abdou Karim mbaa xam nga ne lu ma wax mën naa ko sëñ Abdou Karim ne ko loo wax mën nga lu ko raw sëñ Abdou Karim ne ko Mbakke loo wax mën nga lu ko raw kon nag kon nag ay taalibe rek la ñuy doon ay taalibe rek la ñuy doon. ndax sëñ Touba sëñ Abdou Karim moo jaayoon ak mbokkam jënde ko ak taalibe. ndax sëñ moo jaayoon ak mbokk gi dox diggam ak ku tedd gi jënde ko ak taalibe. ba ba ba ba ba gannaaw sëñ Touba. ba gannaaw sëriñ Touba. moo bind ne. moom sëñ Abdou Karim moo bind ne. jàpp naa ci sëñ Basiiru. jàpp naa ci seex Mouhamadul Bachir. dafa wax magi njaareem nee dafa wax magi njaareem attaakum muriidu seyxi dikk na leen de ab taalibe boo xam ne cib sëriñam la bawoo lillaahi zaira ngir yàlla rek suñ borom subhaanahu wa taala yeroo murida alxaasi di sàkku rek ngërëm rek ma fi indi lillaahi zaira ngeen yàlla mu kawe mi nga xamante ne li may sàkku ci sëriñ bi daal ngërëmal yàlla rek laa si wut si wa maa lii si waa seyxil xadiimi wasilatun ne man nag awuma kenn kenn mu doon sama sëriñ kudu sëriñ Tuubaa xaadimu Mustafaa naa waxa naa xat sirtu naxwaka maa ilaa fii fi ñu jëm fépp sëriñ Tuubaa rek mooy sama sëriñ mu ne nag gannaaw sëriñ Touba. mu ne nag gannaaw sëriñ Touba. tama saktu bi Cheikhil Basiril alimi man. na ngeen xam ne jàpp naa ci Cheikh Mouhamadul Basir mi nga xam ne. bii at ji daaree ni kaw ni ya kaamila. ci moom laa jàpp sama mottali ko dëgg dëgg dëgg. ci àddina ak alaaxira rek sëñ Basir rek laa ko jàppe nag. kon nag nun kon nag nun dan noo tabaxaale ci kër sëñ Bachir. ñun daal dan noo tabaxaale ci kër seex Mouhamadul Bachir. li nu fas doon daal. ñun daal li fas yéenee doon daal. ay muridulaay saadix. ay muridulaay saadix. yu nekk ci seen gannaaw. yu nekk ci seen gannaaw. di liggéeyal sëñ Touba. di liggéeyal sëriñ Touba. gannaaw kër sëñ Bachir. ci gannaaw kër Cheikh Mouhamadoul Bachir. ndigal lii nag. ndigal lii nag. ah sunu jawrin ju mag ja Cheikh Moustapha Bachirou Sadiq ba. sunu jawrin ju mag ja Cheikh Moustapha moom Cheikh Mouhamadoul Bachir Mourid Sadiq ba. moo nu ko tànnaloon. moo nu ko tànnaloon. yal na yàlla yokk ay leeram. yal na yàlla suñu borom yokk ay leeram. te kii ko fi wuutu di sëñ Moussa naawel di di jëwrinam te mate ko sëkk. kii ko fi wuutu di jëwrinam di sëñ Moussa naawel tamate ko sëkk. yàlla na ko fi yàlla yàggal. yàlla na ko fi yàlla suñu borom yàggal. maa ngi ko tuddee ku kenn xamut. ne moom mi ko tuddee ku kenn xamut. dañ koo umpule. dañu ko umpule. wax naa ko keroog ne ko. nee moom mii lay wax na ko keroog ne ko. bis bu set nit wax lu yàlla war a wàccee mbugal. bis bu set nit wax loo xam ne suñu borom mën na caa doxee wàccee mbugal. bis bu set nit jëf ko. bis bu set nit jëf ko. waaye ñi yàlla rusé addina bi ba da wàcce mbugal yi waaye nag ñi nga xam ne ñoom la yàlla rusé addina bi ba wàccewul mbugal yi kenn jiituwu ci sëñ Moustapha Nawel kenn jiituwu ci sëriñ Moussa naawel kon yàlla na ko fi yàlla yàggal kon nag yàlla na ko fi yàlla yàggal yàggal fi baayam bii di sëñ Mountakha yàggal fi waajuram wii di Cheikh Mouhamadou Mountakha mu dund ba dund sàppi mu dund ba dund sàppi ko mu daagu dem aljanna mu daagu dem aljanna te yàlla kattanal ko te yàlla suñ borom kattanal ko ba lépp lu mu bëgg liggéeyal maamam ju baax ji lu mu bëgg a liggéeyal maamam ju baax ji yàlla man loo ko ko yàlla man loo ko ko tam ànd ak rakkam yëpp tam ànd ko ak rakkam yëpp ak seex sëpp ak seex sëpp ak bokki taalibe yëpp ak bokki taalibe yëpp waaw kon nag sëñ bi kon nag sëriñ bi wax ji du gudd wax ji dul guddal liggéey baa ngi liggéey bi daal a ngi nii liñ leen daan wax démb ak barki démb rek liñ daan wax rek démb ak barki démb rek dañuy sàkku daal dañuy sàkku daal daje cee ngërëmal sëñ bi daje cee ngërëmal sëriñ bi te aajo yëpp faju nag te aajo yëpp faju nag nit ñi wér xéewal yi baawaan xéewal yi baawaan ñaanal leen ni ñu bokk ci milliardaires yi sëñ Touba yi ñaanal leen ni ñu bokk ci milliardaires yi sëriñ Touba yi ndax lu man yéen lañ koy mënal ndax ñun kat lu man yéen lañ koy mënal def dégluwuñ kenn ku dul yéen dégluwuñu kenn ku dul def leen ngeen ñu def def leen nu def bàyyi leen ñu bàyyi bàyyi leen nu bàyyi kon nag kon nag na ngeen ñu ñaanal ñu am kattan di def rek na ngeen ñu ñaanal ñu am kattan di def rek te saxoo ko te saxoo ko ndax sëñ Touba dafa wax ne ndax sëriñ Touba dafa wax ne waqdi hawaija na nga faj aajoy la si na daamoo ñi nga xam ne dañoo fi xidmati ki dima liggéeyal wa hablahum maaraamu te li ñuy sàkku nga leen ko may kon noonu foofu lañ fas yéenee nekk kon nun waa Kër Sëñ Karim foofu lañ fas yéenee nekk kon nag sëñ bi kon nag sëriñ bi wax ji du wax ji jël guddal sëñ nee liggéey baa ngi sëñ boo nee na liggéey baa ngi nii noo ngi noo ngi dégluwaat ndigal waaleykum salaam waaleykum salaam nee nuyoom bi nga jottalil ko ko sëriñ Abo ak mbooleem talibe yi nga àndal ne di ñu jot li nuyoo Cheikh Mouhamadul Mountakha. ak cantam ak ngërëmam. ne suñu yamar suñ Cheikh ne diglu na la bu baax dégg na la bu baax a baax wax ji. rafetlu na ko lool. am na solo lool. waaye lañ ci mën a teg daal mooy alhamdulilahi rabbil alamina ndax sëriñ Touba xaasal na sëñ Abdou Karim. sëñ Abdou Karim it ca dolli. mi ngi mottali ko diggam ak Cheikh Basirou. matal na ko sëkk. te rafetal ko lool. waaye boobaak léegi. njaboot gi mu fi bàyyi. dañuy yokk rek. waaye wàññi wuñ ci dara benn yoon. waxtu wu nekk ñu ngi koy yokk. di ko gën a rafetal. di ko gën a yaatal. cër bii ba ko Cheikh Mouhamadou Moustapha di jox kër Cheikh Abdoul Karim. jëkk naa ànd ñoom ci lu bari. ba muy tukki. ba muy tukki. ànd ñoom. sëñ Modou ñoom. sëñ Modou ñoom. ak sëñ Cheikh ñoom. ñoo yore woon kaamil ba. jiite ko. sëriñ Basiirou Touré. ànd ak sëriñ Malick Lo. ak sëñ Mahmadan. ñu yor nos ba. ne loolu nag fi la ànd mën a tàmbalee. te amul fu mu yem. noonu yi la ko doon doxe ba liggéey bii waree am. njaboot gi war a dellu. nee suñ Moustapha dafa seet. ba xam ne. liggéey bu rëy la. bu diis la. bu mu bëgg mooy saaroo. bu mu bëgg mu sax la. ndax daa bëgg it daara ja ca paraxaan mu sax te lépp di yokk. waaye sëñ Moustapha Dey. waaye sëñ Moustapha Dey. ba mu nekkee ca liggéeyu Poroxaan ba. ba mu nekkee ca liggéeyu Poroxaan ba. du ca liggéeyloo loo ku mu wóolu delloowu la. moo tax liggéey bii. moo tax mu yëkkati woon ko teg ko ci loxol njabootug Cheikh Abdoul Karim Touré. moom suñ Cheikh mii nag nee na maam ci cant gu rëy. ndax yàlla daf ñoo boole ci lépp. ni kër sëñ Abdou Karim demee kër sëñ Abdou Latif. foofee la boole gi tàmbalee. waaye ci gàttal rek. waaye ci gàttal rek. sëriñ Basirou Touré. moo ma sàkkuloon. moo ma sàkkuloon. ma ñëw fii. ma ñëw fii. di ñu yewi. ndax benn bés yëpp daa moo daan ñëw di ñu yewi si. sëriñ Basiir Touré ne ko. sëriñ Basiir Touré ne naaj wi tàng na. naaj wi te am nga ndaw lu mat ndaw. te am nga ndaw boole noog sëriñ Cheikh. mu di nu yewi si. sëriñ Abdou lool. mi ngi noonu. ne loolu yi moo tax mu sant. moo tax sëriñ Basiiru. moo ma fàgguloon lool yi. moom moo ma fàgguloon lool yi. mu di ko beral ak cantam. ci biir cant gi. ci biir jëmmi cant gi. loolu moo taxoon mu wax ne. at mu jot. bu ñu nekkee ci liggéey bi. danaa ci barkeelu. dugal ci sama loxo. ngir wane ci ne boole gii ma boole ci liggéey bi lu ma neex la. bismillahi rahmaani asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sëñ Abo sëñ Omar mi ngi lay nuyu bu baax a baax a baax te di la siyaare bu baax a baax a baax te yeesalaat ak njëbbalam bu baax a baax a baax a baax nee na tey dollee laxasaayuwaat bu baax a baax a baax topp ci sa ginnaaw tey diglu sa ndigal. te nee joñ ak ñot di ñaar yooyu dara du ci mbiram di ñaan sab taxawaay yàgg lool nga yàgg jiite njaboot gi ndax nee na soxla nañ la lool ndax saw doxalin wu rafet ak taxawaay bu am solo ak pas-pas bi ak yéene ju réy ji nga am ba tax na nee na soxla nañ la lool soxla soxla boobu yi ñu la soxla moo tax nee na mi ngi ñaan yàlla suñ borom mi nga xam ne mooy def lu ko soob mu yàggal la fi lool lool lool lool sa mag yu baax yàlla jiitu woon sa dund yàlla na romb seenug dund nee na mi ngi la koy ñaanal ànd ak yéene la ko lool ndax gis nañ ne day mag ña jiitu ji nañ waaye fi nga taxaw tax na jooyu ñu mag ña te lépp taxawaay bu rafet moo ko waral <clears throat> kon nee na faaw mu ñaan bu la jiitalee ci loolu ak cant geeg yépp nga def ko jëwrin mbooloo mépp topp ci ginnaawam nee na mi ngi sant bu baax mbooloo mi ndax nee na moom mënul dara dañ koo jiital rek mu te mu nekk ci kanam kon su manee wala liggéey bi jaar yoon nu amee ku nun ko bëggee woon wala nu amee ku nu kawee njort noona nee na loolu day mi ngi koy sante mbooloo mi nee mbooloo mi nag kenn ku ne yaa xam nang ci sa boolee sa bopp su dee mbokk la mu ñëw ngir bokk bisimilaay kooku mu ngi ko ci am santaale su dee taalibi la bu ñëw boo xam ne ak taalibi rek ko fi tax a ñëw mooy la ko ñor ba tax mu dikk nee na kooko ba tey mi ngi koy jox jokk ak cantam su dee wëllëre la wala soppe wala dëkkandoo nga xam ne ñoom it dikk nañ ngir wàll goog yi ñoom ñëpp suñu war nee na mi ngi leen di jox seenu cant yéen ñëpp kenn ku ne mi ngi lay jox sa cant nee na nag mi ngi ñaanal ñëpp ñëpp ràññatlewut kenn ñëpp la dugalaale ci biir ñaan gi wér gudd fa nag wërsëg àllal ak teraanga ndax loolu bokk na ci li yombal liggéey bi ba tax na kon mi ngi koy ñaanal ñëpp ñëpp mi ngi leen koy ñaanal nee li muy wax it mooy liggéey bii yàlla na ko yàlla nangu te am na ci yaakaar ju wér a wér ndax ndigalal sëriñ Tuubaa rek la ab bi moom bu jàppee ndigal ci ab sëriñam da koy jàppee ne sëriñ Tuubaa ko digal rek lool yi moo tax mu ñaan ñu gën a man gën a wér gën a tal fekke lu yàgg lool jëf lu yàgg lool te jëf ji lu mu bari bari yàlla na ko yàlla nangu waajuram mu baax ba Cheikh Abdou Karim Touré moo ne sëñ Tuubaa ma waxoon ne Abdou Mané Mbàkke mu ne jenn jëf ju saa borom nangu manis na ci am defarug adduna ak defarug àllaaxira jenn jëf bu yàlla nangoo te jëf jii day tey njëkku ci waaye nag ñoo ngi ñaan yàlla tey it bañ cee mujj sëñ Cheikh mee nga xam ne demoon nañ fa sëy boo mi ngi lay yónnee cant ak ngërëm ak nuyoo sax a jiitu ba Cheikh Mouhamadou Mountakha boo xam ne ma ngi la koy nuyu ak cantam. ak ngërëmam moom itam bu baax ako ñaanam tamit wax na ne jëf ji day alhamdulilahi rabbil alamina ndax nee na saa ñu dikkee bëtam dana tege ci loo xam ne gisuñu ko foon ba ren jii noon yi ñu dikkee waate mu gis loo xamante nii bokkutoon ci la fa daan dem mu daan ne ah alhamdulilahi danañ sant yàlla de ndax mu Moussa mi leen joxoon liggéey bi day daana wax ne am murid day jëfi daawam jëfi renam da koy romb te lii ngeen def wane na ko ndax seen jëfi ren day romb na jëfi daaw ja bàgg na ci taren taren nag ba mu ko waxee wax dëgg xaw na maa jaaxal tuuti ndax baat bi daa wolofe ba xaw ma ko bu baax mu ne ren da ngeen a jëf ba jëf taren boobee ba ko waxee nag mënu ma ko wax sax bu baax mu ne taren mooy nga doon duy ndab bala ca xaj-xaj ca ngay nga tëx bàyyi loolee da di tuuru fa suuf di wala ngaan nee na loolee mooy taren daal ne ren jii bu fekkonte ni mën naa wax ne wala ngaalal ngeen wala ngaalal ngeen kon loolu moo ñu dal ren daal ne nag bu wenee ne tamit yàlla na gën a yokkate ak nu mën a yokkee yàlla na gën a yokke noone ma nga lay yóbbante tamit di wax ne liggéey bii nga xamante ne nii ñu ngi la koy liggéeyloo nga liggéey ko liggéey nu rafet wii ba jébbal leen ko ñu fas ko yéenee jox gone yu tuuti yoo xam ne amaguñu bakkaar bu ñu xéewloo ba bii si jël leen yóbbu leen Poroxaan ngir lan ngir ñu dem di jàngi alxuraan nee na soxna jaara ma ñuy dendal di jàng alxuraan yi wa cay dotti ko yëpp nee na na nga gëm ne la yàgg ñi nga àndal ñëpp seen wàll nga ca biir yi woowee loolu moom wax na ko te lu wér wér la ndax ku ne xam na ne moom soxna jaara moom moom mbiram day baawaan rek ku ne xam na ne mbiram day baawaan ndax lii lépp ci baawaan si wala ngaanu soxna jaara la la amee te nee na gone yooyu nga xam dañuy jàng alxuraan foo wetu soxna jaara tuyaaba ca cay dotte koo ne la wër na yaa ngi nga àndal yëpp seen wàll nga ca biir loolu nag ab soññewaat la dëgg dëgg dëgg koo xamante ne nii yaa nga ca poroxaan amagoo bàkkaar di jàng alxuraan muy dugg ci nopp soxna jaara tuyaaba di tuyaaba ja di dotteeku nga nekk fii fi sa kër yow ñu la ca sédd ab cër loole la nga defoon ba bokk ca la la ca boole war nga war nga koo yokk bu baax a baax a baax la la ca boole war nga ko yokk bu baax a baax sëñ boobu noo ngi lay sant ñun tam waaye bu la sëñ Amar santee ñun ñëpp dañoo duggaale ci cant gi noo lay gërëm ñun tam bu la sëñ Amar gërëmee ñu ñëpp dañoo duggaale ci biir ngërëm li noo lay ñaanal ñun tam bu la sëñ Amar ñaanalee ñun ñëpp dañoo duggaale ci biir ñaan googu te li ñu bëgg mooy yàlla mi yàggal yàggal la fi rek na boo fi yàggee lépp dana baax ndax teg nga sa tànk fi nga ko war a teg mën nga sëkk kilifa loolu nag na nañu sëkk yàgg gi rek la ñuy ñaan yàlla mu defal ko waaye yow mat moom def nga insaanun kaamil li ñuy wax ni doomu bu mat sëkk loolu moom yàlla def na ko ci yow ba noppi loolu kon sant nañ ci yàlla ndax li ñu bëggoon ci yow muy mat gi sëkk am na fanu yàlla moo ko yor te sañ nañoo ñaan ndax u ud'uuni astajib lakum suñ borom ne maa ngi leen di dégg ñaan leen lu ngeen dégg lu ngeen ñaan dégg naa leen te su ngeen di ñaan may nangu kon yàlla na nga fi yàgg te wér ci barke Cheikh Abdoul Karim ture liggéey bi daal yàlla na nga ko yóbbu fu kawe njortu fu kawe njortu ba ñëpp ne alhamdulilah am wax nañ alhamdulilah waaye alhamdulilah benn da caa doyut ndax saa bu nekk ñu julli waxtu yu juróom te fu ñuy tàmbalee alhamdulilah rek la ji tàmbalee te bis bu ñu julli waxtu yu juróom te bu wax kabare rek alhamdulilah nga cay teg kon sant moo du doy waaye daal noo ngi wax alhamdulilah rabbil alamin xol yëpp sedd nañu xol yëpp dal nañu xol yëpp sedd nañ xel yëpp dal nañu ki nga xam ne moom la ñuy liggéeyal nag di jàmbaar joo xam ne moo liggéeyoon sëriñ Touba ba sëriñ Touba gërëm ko sëñ Amar wax na ko léegi sëñ Cheikh daara sëriñ Touba laxasaayu di liggéey bañ na la wàññil ëpp na kenn lañ mas sa dégg ku ko ku ko sëñ Touba wax muy Cheikh Abdou Karim Touré ku nekk sëñ bi soññ na la ku nekk sëñ bi soññ na la waaye waaye wàññil ëpp na moom romb ko ne mu ne Abdou wàññil ëpp na boroom kër gi rek ko ma sa dégg wàññil ëpp na ku ne nee nga ngéejoo liggéeyal Serigne Touba waaye di ko liggéeyal bam ne la wàññil ëpp na moom kii rek ko mas a dégg nag moom. ñëpp. Serigne bi nee na mi ngi sant yàlla bu baax mi ngi nuyu ñëpp. kenn ku ne ci turam ak santam. Serigne bi nee na kenn ku ne ci sa tur ak saw sant. ñu ngi ciy jiital Cheikh Mouhamadul Mountakha. mais mi ngi ciy jiital ak Cheikh Mouhamadul Mountakha. nga xam ne mooy kilifa yoon wépp mi nga xam ne mooy kilifa yoon wi yëpp. te moom it ko sëkk. te moom it mu mate ko sëkk. kenn ku ne xam na ne moom sëñ sëñ Mountakha. kenn ku ne xam na ne moom Cheikh Mouhamadul Mountakha. kuñ ne mooy sa kilifa. kuñ ne mooy sa kilifa. doo rus fenn. doo rus fenn. doo ko rus a wax fenn. doo ko rus a wax fenn it nag. kon nag. kon nag ñoo ngi koy sant. ñoo ngi koy sant. te di ko ñaanal. te di ko ñaanal. yàlla may ko wér. yàlla may ko ak wér. guddalu fanam. te guddal aw fanam. gannaaw bu loolu jàllee. sëriñ bi nee na gannaaw bu loolu jàllee. ñu ci teg sëñ Omar mii. ñu ngi ci teg sëñ Omar mii. nga xam ne mooy sunu jëwrin. nga xam ne mooy sunu jëwrin. ni mu doone seen jëwrin. ni mu doone seen jëwrin. la doone sama jëwrin. noonu nii la doone si jëwrinu sëriñ bi. ndax kër gi la jëwrini kër gi la. ndax sëriñ Omar jëwrinu kër sëñ Abdou Karim la. kon nag te ci kër sëñ Abdou Karim laa bokk. te sëriñ bi nee na ci kër sëñ Abdou Karim la bokk. kon man it sama jëwrin la. kon moom it jëwrinam la. kon ñu ngi koy sant bu baax. sëriñ bi nee na sëñ Omar mi ngi lay sant bu baax. mosut a jooyoo ak sama ndigal. mosoo jooyoo ak ndigalam lu yàgg ba ba fi mu ne nii. lu jàgg ba fi mu toll nii. ndax daanaka noo goneendoo. ndax daanaka ñoo goneendoo. daan bokk ak doon tëdd ci nekk sëñ Abdou Karim. daan bokk di tëdd ci nekk sëñ Abdou Karim. waaw ah, kon nag. kon nag. lépp loo xam ne lii sëñ Abdou Karim boole woon nañu ko. lépp loo xam ne sëñ Abdou Karim boole woon na leen ko. wax nu ko dénk nu ko. wax leen ko te dégg leen ko. def nga sa wàll mu ne sëñ Omar def nga sa wàll ba mat sëkk xëy na li ci des ci man lay dese kon xëy na li ci des ci moom mii la dese waaye desi wut ci yow waaye desi wut ci yaw kon nag noo ngi sant itam sëriñ bi nee na ñoo ngi sant itam tey nuyu itam tey nuyu itam sëti sëñ Abdou Karim yëpp sëti Cheikh Abdoul Karim Touré yëpp ak foo foo ci mën a bokk sëtoo ci sëñ Abdou Karim ak foo ci man a bokk te sëtoo ci Cheikh Abdoul Karim maa ngi lay nuyu sëriñ bi nee na mi ngi lay nuyu maa ngi nuyu itam sëriñ bi nee na mi ngi nuyu itam taalibey sëñ Abdou Karim yëpp taalibey Cheikh Abdou Karim Touré yëpp ak kër goo ci mën a aju ak kër goo ci mën a aju te bokk ci kër sëñ Abdou Karim te bokk ci kër Cheikh Abdou Karim ñu ngi leen di nuyu sëriñ bi nee na mi ngi lay nuyu ñoo ngi sant jëwriñ yëpp nag sëriñ bi nee na ñoo ngi sant jëwriñ yëpp ñi nga xam ne ñoo yor daayira yi ñi nga xam ne ñoo yor ak ñi nga xam ne ñoo ne woon ci waañ wi ak ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci waañ wi sonn ba ci tàngoor wi sonn ci tàngoor wii ba maanaam diirub ñetti fan yi yëpp diirub ñetti fan yi yëpp kenn noppaluwu ci. te kenn noppaluwu ci. te lépp bëgg ndigal li. te lépp bëgg ndigal li. aw yoon rek moo tax. aw yoon rek moo tax. ba lépp aw yoon. ba lépp aw na yoon. ba sëñ bi sant. ba sëriñ bi sant. Ah, nun nag. sëriñ bi nee na moom nag. bun soxlaa. bu sëñ bi soxlaa. bu sëriñ bi soxlaa. dañuy fexe rek. dañuy fexe rek. ba soxlaam faju ba faj soxla boobu sëriñ bi soxla. ko defee rek ñu nit suñ soxla dana faju mais bu ko noo ngi sant itam sëriñ bi nee moo ngi sant itam ndax waa kër Baye Jaaja bu ma leen tudd it nee na waa kër Baye Jaaja bu leen tudd it dama a boole ci waa kër sëñ Abdou Karim rek nee na da leen a boole ci waa kër Cheikh Abdoul Karim moo tax te boole leen ci bokk yi te boole leen ci bokk yi boole leen ci taalibe yi boole leen it ci taalibe yi looloo tax sëriñ bi nee loolu moo tax looloo tax béruma béruma leen. nee loolu moo tax it béru leen. waaye ñoom xam nañ ne sant nañ leen. waaye waa Kër Baye Jaaja xam nañ ne sant nañ leen bu baax.